Ahmad Mbacké yëpp si am. jërëjëf da ngeen jëf. jëf. na mën naa leen. na mën naa leen. na mën naa leen. Go! serigne bi neena day tukki. neena day dem France. andak Adja saliw neena day andak soxna Adja waye fasu fasuma yene yag fa. fasu fasuma yene yag fa. damay dem rek. neena damay dem rek. defi contrôle médical. defi contrôle médical. tawax sima fa yobou won tawax sima fa yobou won ba ñu ma fajee. ba ñu ma fajee. ba noppi. ba noppi. dañu ma waxoon ni. dañu ko waxoon ni. ñetti weer yu jëkk yi. ñetti weer yu jëkk yi. te ñetteelu weer wa. te ñetteelu weer wa. damay dellu. da ngay dellu. bi ma ñibbisee. bi ma ñibbisee. toogaat juróom benn weer. toogaat juróom benn weer. ci juróom benneel ba. ci juróom benneel ba. ma dellu. ma dellu. ma toogee. bu ma toogee. ba amaat at. ba amaat at. fukki weer ak ñaar. fukki weer ak ñaar. ma delu wat ma ko jàppoo. nee na bu ma ko jàppoo. jamono ju jamono ju ma seet. ma seet. lay duubal ba. lay ba. ci ay fan. ci ay fan. ma ma ngeen ñaanal ma. ngeen ñaanal ma. bala amum at. amum ñëpp yegg si suñu bànn. na ngeen xam ni. nee na na ngeen xam ni. na seen na seenum xel dal. na seen xelu dal. maa ngi leen di digal. nee na maa ngi leen di digal. maa ngi leen di dégtal. maa ngi leen di dégtal. ni ni. deeti nañu fi yàgg. deeti nañu fi yàgg. dëgg la ànd bi ànd bii. Serigne Saliou def. Serigne Saliou def. muy maag yéen. muy maag yéen. te bu doon téeméer. bu doon téeméer. juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent. juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent. kenn bi kenn bi dana nu dem. ba ñëpp te nee na day ànd ak barke. ak wér. day ànd ak barke. day ànd ak barke. ak wér. ak wér. jërëjëf sang bi. nanu sax. nanu sax. ci sant Serigne Saliou.